11 novembre 1902 11 novembre 1902 11 novembre 1902. bata bi ne sëmm taxaw maam Saliou Fall rek Cheikh Ibrahima Fall la njëkk a sëñ bi ñëw na. moo jékki-jékki naa doom xoolal leen boo xam sëñ ba daa ñëw. mag ñi dugg ci waax bi xool laaj maa ñu ne bato bii taxaw de bagage la sëf waaye indaale na sëñ Tuubaa mu ne doom looloo mën am. ni sama tànk yi jaxasoo laa xam ne sëñ bàmbaa nga ci kaw suuf si ku wax loolu maam Saliou Fall ak Cheikh Ibrahima tànk yi bi mu jaxasoo rek laa xam ne sëñ bàmbaa nga maam Saliou Fall ak Cheikh Ibrahima rakkam mu mag ñi jàkkaarloo moom mag ñi ñii mënuñoo toog ñii mënuñoo taxaw ñii seen i put wow ngir taqamti ko gën a taqamti ko bato bi mel ni kuy séntu weer ñii naan lu mu juróom-ñetti gisuñu ko mu ndax day dund wala ci luñ ko def mu ndax dana soppi bata bi na mékk ñaari waxtu rek mag ñi nag goroom seen at na jëpp tukki ab diir ñu nag këccat bato bi ab tubaab dox ba xaajale naa awee Cheikh Anta ñu ne Cheikh Anta wuyul mu jóg di tërëf raam ci escalier yi escalier yi yéeg yaam ci sëñ mu ne ko xineet mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko dem naa ba ñëw Cheikh leewul ma wey yi maam Cheikh mënta leewi wey yi di duuri xéewal mu ne ko topp leen sama mboor dem naa ba ñëw defuma lu sama taalibe bi cheikh yàlla bég na yonent bi bég na da ngeen bég ëllëg yàlla bég na yonent bi bég na da ngeen bég ëllëg yàlla bég na yonent bi bég na da ngeen bég ëllëg yàlla bég na de na de cheikh da ngeen bég cheikh topp sama mboor dem naa ba ñëw defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw waaye cheikh mu ne ko mbakki ci àdduna lu waabati borom loxo lu tuut lii Ahmadou Bamba lu waay amati borom loxo lu tuut dal di wacc wut ci ki bi ma ngi seen gu mu ne tël ak melaw wax ño ñoo bi sëñ bi ne dañu dañoo am ño xam dañu sar xolle am ño xam dañu dañoo yuux xeetu nit bu ne gis nga ko fa keroog ñi di daanu di xallaañu ñi di sar xolle ñi bëgg di moñ ñi di joy lepp ngir serigne bi jaaxal leen sëñ bi nañ ma wàcceel sama gaal yi liggéey bi ma liggéey yónent bi bala maa wàcc day wàcc ñu di roñ sëñ Seex ak Seex Ibra di ko roñ di ko wàcc bari lool lép fees dell ci mbindum loxo sëñ bi lépp di tagg yónent bi ak julli ci moom ak bàkk yàlla ak kañ ko ak màggal ko ak nettali liko ko yàlla defal ak sant ko ca yéesuwul lool liggéey boobu nag bari gi tax na. roñ bi yag lool Cheikh Anta ak Cheikh Ibra kep di ko roñ bam de ba nar leena yagal te nang wuté wacc te tuba bi yakamti nañ mu wacc ñu tuba bi and ci di ko roñ le ñu di ko roñ di ko roñ ba lepp wacc mam Cheikh ak mam Cheikh Ibra ñom ñëpp ñew ne ko lepp wacc na fi suuf dara setu mu ne kon bismillah bi mu bi tëll gisé ndoko nak ci la ci la loolu yi xew ñi di joy ñi di sar xol ñi di yoxu bam nuyo nit ñepp nak bam dal mu ne alaykum ñepp ne alaykum salaam bolo mi riir ba dal mu yëkëti loxoom bu tedd ba loxoom day joram ba dalal ko daa wa okay dama di dama demoon liggéey li yonent sallallahu alayhi wasallam rek waye ñibisina ci tukki bi lepp lu ngeen gisati sama gannaaw nak na ngeen xam ne ci bi loxo bu sew bi moko liggéey kon nak bis bi bis bu ñu wara fatali ko la lu nu am sëriñ bi lu waay am ci jàmm ci senegal ji te ba tala julli ba tala woor sëriñ bi ko liggéeyal te bu dutoon looloo loolu Cheikh musaaka Ka waxoon ne bu dul bu dul kon ak dem gii wala nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu kon kenn kenn mënta fay sëriñ bi moo nu ko liggéeyal te kenn bettaliwu ko kooku doon wax amin bu ñaan sax newu fa kenn jàppaliwu ko ci dara mën na ca liggéey ko ba mu sell ko ci suñu loxo ñu ko jëriñoo kon yàlla na nu ko yàlla fayal moom rek rek moo amuk pay yàlla na nu ko yàlla fayal lu kawe njortam di wéy di ko fay ba àjjana di wéy di ko fay ba faw dañ sax ci ak bëggam te doon ay taalibeem yum nangu suñuy taalibe jërë ngeen jëf loolu rek laa doon fàttali ko 11 novembre 1902 kullu aamin wa antum bi xayr novembre 1902 11 novembre 1902